sénégalaise ñun ñi nga xam ne ay baadoola lañ ñun ñi nga xam ne maanaam amuñu ay diplôme yu mag ñun ñi nga xam ne jànguñu école ñun ñi nga xam ne maanaam suñu statut sociale daf ñoo permettre tey ñu am benn ascension sociale bi ñun ay dof lañ ñu jàppee ñun ay mbaam lañ ñu jàppee ñun ñu tekkiwul dara lañ ñu jàppee tey ci kaso yi am na ci ñoo xam ne ñu ngi leen jàpp tëj leen injustement defuñu waxuñu mais lenn rek moom moo tax ñu tëj leen parce que amuñu avocat boo xam ne tey daf leen défendre parce que amuñu ay moyens yu ñu ko wutee amuñu fu ñu dem taxaw tey jooy seen seen njàqare jooy seen tiitaange pour am justice ñooñu tey ñu ngi ci kaso yi tëdd par rapport ak longue détention yi am na ñoo xam ne ñu ngi ci kaso yi depuis des années ñu dóor leen mandat de ñu nekk ci kaso yi di dund lu metti defuñu kenn dara tooñuñu waxuñu kenn dara mais ils ont été inculqués injustement ñu tëj leen kaso tey ñu gis Bougazelli koo xam ne dañ ko jàpp en flagrant délit les mais dans le sac muy def loo xam ne ñépp ko ñaawlu au delà en plus de cela mu nekk un député du peuple ñun ñëpp ñu yaakaaroon ci moom maanaam benn taxawaay boo xam ne dañ naan ñun kat par exemple ñu ñuy représenter au niveau de l' assemblée nationale assemblée nationale nga xam ne dans une démocratie moom mooy la représentation la plus achevée des aspirations du peuple ñu gis suñu ay député tey di dugg ci yoo xam ne guute yoo xam ne tey kenn mënu ko mënu ko mënu koo rafetlu tey ñu génn la justice sénégalaise saaga sénégalais yëpp parce que loolu la en fait tey bu ñu taxawee ne dañoo tëj Assane Diouf parce que dafa injurier le président de la république bu ñu nee tey dañoo dañoo dañoo dañoo tëj Abdou Karim Gueye parce que en réalité dafa wax wax yoo xam ne dafa débordé ñu xëy suba ñu génn Bouga koo xam ne c'est un délinquant mu def délit bu mag a mag a mag ñu génn bàyyi ko ñun ban justice lañu am ban justice la ñu am justice pour les riches et justice pour une justice à deux vitesses ñi ñu jiite wala suñu ay intellectuels dëkk ñi nga xam ne ñoom la ñu teg ci suñu kanam ñu jiital ñu ñun ñëpp gënuñu ñu nit ñi ñoo leen wóolu teg leen fi ñu leen teg mais dañoo war a xam ne maanaam li mag ñi di wax rek ma gouverner c'est maintenir les balances de la justice égale pour tous mënuñoo jël benn justice boo xam ne day jël ñi ñàkk maanaam di leen toroxal di leen bunduxatal di leen teg lu metti ñi nga xam ne dañoo am ñoo ils sont indemnes ce sont les les intouchables dara mettiwu leen bu ñu demee kaso sax bu ñu sàccee ay alali alali alal bu ñu defee loo xam ne moo gën a bon bu ñu demee kaso maanaam ils sont dans les dans l'aisance dans l'opulence kaso yi ñu leen di tëj sax cellules yi ñu leen di tëj sax maanaam manqué wuñ fa dara baadoola bi nag moom mooy sonn parce que am na leen loo xam ne dafa ñaaw mënuñoo instrumentaliser la justice tey li nga xam ne dafa xew Sénégal ñëpp ko xam bu nekkee baadoola nga. quand tu es quand tu es quand tu es citoyen lambda en un mot boo nekkee citoyen lambda bu nekkee da ngaa sàcc nen dañu naan délit la bu nekkee tu es un politicien nga sàcc nag dañ naan business la loolu ba kañ lan moo maanaam man mënumaa comprendre faire des années d'études des années et des années d'études am toutes les qualifications am toutes les distinctions pour être un fonctionnaire pourri un magistrat corrompu yéen yéenay saaga sénégalais yi Macky Sall li mu nekkee Sénégal du moom kese maanaam c'est à tous les niveaux la corruption elle est consubstantielle à notre dans notre société moom moo tënk suñu model maanaam léegi y a beaucoup de magistrats qui sont chaque jour Ibrahima Souleymane Téliko dénoncé ko moom moo jiite union des union des de la des magistrats du Sénégal chaque jour ñu dénoncé ko Macky Sall la fois passée lu yàggul dara la le gracier euh, Amadou Wuri Diallo un délinquant reconnu par rapport au trafic de de faux médicaments yi nga xam ne daf ko doon def tey baadoola bi nag moo gën a sonn baadoola bi la ñu gën a ñàkk a wekk bi moom moom mooy le délinquant moom mooy euh, le sulfureux moom mooy le mal à expier ki nga xam ne moom tekkiwul dara ci dëkk bi mais ñoom ñoom ñooy sàcc ay milliards kenn du leen intimider Alioune Sall dafa dóor suñu 6 000 milliards tey dëkk bi ñu nekk kenn intimider wu ko enquête ubbi wuñ ko enquête bu jar ñu naan enquête parce que quelque part jug nañ taxaw ne appel à témoin parce que quelque part ñun ñëpp xam nañ ni il fait partie des intouchables magam moom mooy président kon il est indemne de de de tout souci parce que amuñu justice boo xam ne dafay réguler euh, la la démocratie de notre pays parce que justice moom mooy par exemple l'équilibre dans un pays justice justice moom moo mën a créer équilibre ci dëkk. pouvoir exécutif ak pouvoir judiciaire ak pouvoir législatif maanaam justice rek moom moo ko mën a réguler mais justice boo xam ne bu ñu jàppee baadoo dañuy fexe diligenter benn benn benn enquête pour teel ko inculper mais bu nekkee dañoo jàpp koo xam ne dafa bokk ci ñoom bokk ci njuuj njaaj yu ñuy def dinañ seet par tous les moins pour jëm ko pour libérer ko loolu bakkañ bakkañ ñu nekk ci Sénégal boo xam ne maanaam baadoo bi rek moom mooy tëdd kaso ñoom ñi nga xam ne ay milliards milliards milliards la ñuy sàcc dañuy nekk di dox ci seen ay soxla te bu ñu génnaatee ci société bi ñëpp weg leen ñëpp jox leen cër tey Bougazelli bu demoon déposé waat nekk un député waa Guédiawaye ñoom ñoo koy njëkk a voté mu nekkaat député kooku moom mooy représenter le le Sénégalais fait kooku moom mooy représenter suñu ay aspirations un délinquant un yoo xam ne xamoo sax noo ko mën a tuddee quoi léegi loolu la ñu bëgg a dund ba li ñu nekk maanaam le mal est partout le mal est, est partout dans la société sénégalaise foo dem maanaam mal bi la maanaam l'élite sénégalaise doit se poser mille et une question man mënumaa comprendre dem jàng jàng yu baree bare bare ñëw pour être un fonctionnaire yi nekk ci administration bi pouvoir exécutif di la manipuler à n'importe à à ses à sa guise et à ses lu mu soxla nga defalal lu mu soxla nga defaral ko ko mais ba kañ ba kañ ñu nekk ci système boobu. ba ñuy dundee noonu ba kañ ñuy nangu maanaam ñii duñu teg jàppee njaam jàppee seen bopp ay nit parce que nit ku parce que ñun sénégalais maanaam lu ñëw rek ñu nangu ko lu ñëw ñu ne ah ñoom ñëw jiite de nañ leen bàyyi yàlla moom moo leen fi teg yàlla moom moo leen fi teg ba kañ moom moo leen fi teg ñu ñuy toroxal yàlla moom moo leen fi teg ñu ñuy jàppee jàmm yàlla moom moo leen fi teg maanaam ñu ñàkk ñoo wekk Macky Sall la justice sénégalaise le pouvoir législatif ñoom ñëpp maanaam ils sont là pour les sénégalais foog sénégalais yi xam loolu Le pouvoir est fait pour servir et non pas pour se servir. Dans, dans un pays normal, c'est le peuple, c'est le citoyen qui est, qui est roi. Citoyen, mon roi. Citoyen, mon le porter dans un piédestal. mais da ngay gis dans un pays bu mel ni Sénégal maanaam ñi nga xam ne ñun ñoo leen porté teg leen fi ñu nekk sax ñoom ñoo ñuy jàppee ay mbaam ñoom ñoo ñuy jàppee ay baadoo ñun ñun bëgg nangu maanaam configuration société boobu ba kañ duñu remettre en question modèle bi nga xam ne moom la ñuy jaay depuis depuis depuis depuis les indépendances depuis les indépendances loolu la ñuy jaay mais nga gis ni maanaam ay nit yoo xam ne dañuy dem jàngi ñëw taxaw di làkk seen ay français sujet verbe complément ak alors qu'ils sont des beaux ariens boo leen tegee ci poste da ngay xam ne maanaam ñii jar ñoo wekk nit da ngay doylu yéen intellectuels yi nga xam ne vous c'est vous qui occupez l'administration sénégalaise que vous soyez des magistrats que vous soyez dans dans d'autres administrations soyez propre soyez intègre le juge Kéba Mbaye daf leen ko doon wax chaque jour c'est de par votre impartialité que le monde vous jugera mais mënuñu leen juger à travers vos parjures da ngeen di dangeen di maanaam da ngeen di da ngeen da di ñàkk a weglu seen bopp te tey foo leen génn ku génn taxaw di wax rek ñu ne ah Sénégal de am nañ justice Sénégal am nañ démocratie Sénégal maanaam une démocratie de façade la ñu am amuñu une démocratie une démocratie de façade la ñu am parce que benn pouvoir rek moom moo fa existé moom mooy le pouvoir exécutif Macky Sall nawul sénégalais respecté wu leen fonk leen. xam nga lan nawul sénégalais respecté wu leen fonk leen parce que ñu ngi nekk tey aujourd'hui ci benn impasse absolue nit ñi mer ci couvre couvre feu bi ku nekk naan ban yoon la ñuy jaar Macky Sall solution la ñuy andil au lieu mu ñëw en réponse avec aux aspirations du du du peuple en réponse aux aspirations de la population muy ñëw di di ñuy ñuy instrumentaliser la mainmise de de l'exécutif sur la justice pour ñuy libérer ay Bougazelli pour kat boobu baadoola baa crever dans la merde ci ci ci ci ci ci euh, ci ci prison yi à travers la vétusté des euh, de prisons prison yoo xam ne yàgg ñu surchargé ko ay innocent nekk fa am na ñoo xam ne certes dañoo tooñ mais prison yi ay innocent ñoo fa nekk yu bareng fa ñu jàpp leen injustement tëj leen foofu considérer leen comme di bétail en fait nit ñi di nangu loolu ba tey ñu koy nangu ba tey Macky Sall lim ñu waxoon boobu ba tey defu ko jàppee peuple di jaam jàppee ñu ay dof xam nga nit xam nga maanaam nit ñi dañuy jaawale noppi nit ñi dañuy jaawale noppi ak froideur lâche loolu la nit ñi di jaawale suñu yaay ak suñu papay bu ñu waxee ñu ne ñun de dañoo bëgg Macky Sall parce que boolewul daraa ki wax gis nga njiit un président de la république boo matee li nga doon dangaa war a boole daraa ki wax parce que tey mënuñoo toog fi ñu toog ñuy insulter l'intelligence des Sénégalais à chaque fois et à tout moment et à nga toog fi nga toog maanaam di def di manigancer say affaire ci suuf te tey kenn du ci wax sénégalais vous devez vous devez vous poser mille et une questions vous devez ouvrir vos yeux ngeen comprendre que ni dëkk bi bu ko sénégalais yi defarul kenn du ko defar dëkk bi bu ko doomu réew mi defarul kenn du ko defar dëkk bi bu citoyen yi citoyen yi exigé wul plus de justice plus d'égalité et plus d'équité kenn du ko am ñun ñun population ñun ñooy buur ku fi falu ñoo ko fal ku fi wàcce ñoo koy wàcce kon ñun ñooy buur maanaam la véritable souveraineté ça appartient au peuple et la constitution nous a conféré tous les pouvoirs jusqu'à la grève général sax con constitution daf koy may peuple bi pour mu def ko mais kon en réalité dans une démocratie c'est le peuple qui est qui est souverain c'est le peuple qui est en réalité à, en amont et en naval mais peuple bi na prendre ses responsabilités à un moment donné am nañ benn benn cohésion benn entente ñu naan suñu dëkk du lii suñu dëkk du laa am nañ benn jàmm boo xam ne dëkk la mais am na leen loo xam ne dañ cee yàgg te mënut wëy chaque jour ñuy insulter les sénégalais tey Assane Diouf je suis pas je suis pas avec lui par rapport ak ses sa méthode de combat et tout lu ko ne moom la c'est c'est sa direction loolu la mais tey Assane Diouf amul lu mu def lu dul saaga Macky ñu tëj ko. saaga Macky Sall la def injure la ñu wax ñu tëj ko mais tey par rapport ak libération Bougazali bi maanaam c'est une insulte à tout à tous les sénégalais sénégalais yëpp la justice sénégalaise bi insulté mais loolu kañ ba kañ sénégalais yëpp la justice sénégalaise bi insulté en fait c'est ça à un moment donné foog ñu xam ne maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci justice bi parce que la la l'élite sénégalaise moom mooy li li li tonton Boris Diop ji wax tonton Boris Diop daf naan l'Afrique et malade dans ses gis nga Afrique guute yu ñu nekk yëpp. certes c'est bien beau de pointer du doigt les occidentaux le mal est hyper profond chaque jour ñu gis ko xam ne maanaam dañoo diriger ñun nous sommes doublement dirigés de l'interne à l'externe am na ñenn ñoo xam ne ñoom ñooy tirer les ficelles d'en haut ñoom ñoo ñuy diriger mais à l'interne au niveau endogène suñu élite bi jaruñu dara barki alxuraanu karim jaruñu dara man je peux pas comprendre dem jàng des années d'études dix ans d'études vingt ans d'études et avoir toutes les distinctions pour devenir un fonctionnaire pourri pour devenir un magistrat corrompu, pour devenir un agent de l'État qui ne vaut absolument rien du tout, qui n'a pas de dignité, qui ne pense pas à, qui n'interroge même pas sa conscience lorsqu'il sera appelé à prendre une décision. Mais juge bi nga xam ne moom moo libéré euh, Bougazali kooku est-ce qu'il a il s'est posé ces questions est-ce qu'il a interrogé sa conscience est-ce qu'il a pensé aux Sénégalais est-ce qu'il a pensé à la réputation de la justice sénégalaise est-ce qu'il a la réputation de ses pairs Est-ce qu'il a pensé à ces gens justes qui, qui œuvrent au sein de la justice sénégalaise Mais c'est ça, c'est ce dont il est question aujourd'hui, de se, de se poser les véritables questions. En fait, lolo la quoi Parce que tay fi ñu nekk ci Sénégal lolo la. Tay baadoo lay dañoo noppi. baadoo lay mënuñu dara loo wax parce que ñun ñëpp ils nous ont convaincus l'élite sénégalaise laa yor ils nous ont convaincus de notre incapacité gëmloon nañ ñu ni ñun duñu dara ñun mënuñu dara mënuñoo exiger dara parce que c'est eux qui sont important ñoom élite bi ñoom ñoo important ñoom ñooy def lu ne de de de de de la colonisation à nos jours maanaam Afrique musul libre ci dara. am na ñenn ñoo xam ne boo leen laajee sax dañ naan tubaab yi toogoon fii jiituñu moom moo ñu moom moo moom moo gën lii ñuy dund mais à un moment donné c'est ça en fait ils nous ont convaincus de notre incapacité ñun nekk di daw ci loo xam ne maanaam kenn xamut lan la. yow boo nekkee baadoola la justice elle est parfaite pour toi boo nekkee baadoola la justice elle est parfaite pour toi boo sàccut sax boo defut dara sax dinañ jéem a xool nu ñu def ba tëj la parce que tu n'as pas tu n'as pas une défense tu ne peux pas te défendre tu n'as pas les moyens la société elle ne te calcule pas tu es condamné en amour par ton statut à travers son ton statut social sa statut social rek daf lay tëjlu quand tu la banlieue même lorsque tu es accusé d'un délit que tu n'as pas commis forcément tu seras tu vas croupir en prison forcément quand tu la banlieue c'est ça boo dëkkee ci banlieue bi maanaam dëkk ci banlieue bi statut social rek c'est passible d'un délit c'est ça en fait loolu la ñu war a xeex ñu nekk ci benn dëkk boo xam ne maanaam kenn mënut am mu ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ëpp ci ñun mënuñoo am tey une maanaam la justice sociale elle n'est pas elle n'est pas au rendez-vous amul benn justice bu nekk au rendez-vous ni la justice sociale ni la justice institutionnelle et que tey lan moom moo gën a déplorable li nga xam ne danga koy gis ci suñu dëkk yi li nga xam ne da nga koy gis en réalité Sénégal moom mooy sous les couleurs de la justice la ñuy jël maanaam di instrumentaliser les lois di tëj ñii di tijji ñee les délinquants les délinquants financier yu mag yi kenn du leen tëj Bougazelli génne nañ ko. Thione Seck fii lañ ko fekk moom ak ay faux billets génne nañ ko suñu suñu frère ak suñu sœur yi nga xam ne ak suñu am na suñu ay suñu yaay ak ñu nekk nekk ci kaso bi ils n'ont absolument rien fait am na ci ñoo xam ne benn benn nen la ñu sàcc ñu tëj leen ay mois et des mois bien voire même des années am na ñoo xam ne dañ leen fàtte ci kaso yi te ils n'ont absolument rien fait Bougazali liñ ko fekkal les mais dans le sac pris en en flagrant délit ñu bàyyi ko mu libre mais ban justice la ñu mën a respecter ci Sénégal. man li ma gëm moom mooy Sénégal ku taxaw di gëm ne justice am na fa ba tey yow tu n'es pas bien dans ta tête tu n'es pas bien dans ta dans te tey maanaam loolu la war a xeer te tey am na leen loo xam ne man man damaa gëm ne ñu ñu tardeel Sénégal du Macky Sall kese de élite bi yëpp ñoo ñu tardeel ñu néew ñoo ci baax ñu néew ñoo ci baax te tey ñi nga xam ne ñoo ci gën a bon man je ne peux comprendre comment nga nekk ci justice bi tey nga défendre lii suba nga défendre lee maanaam c'est ça quoi tey nga mel nii suba nga mel ne tey nga weex suba nga gàtt tey tu es avec le peuple suba tu avec avec les politiciens et que une république c'est les citoyens qui feront une qui font une république citoyen moom mooy defar république en réalité ce son les démocrates qui font les démocraties mais ce sont les citoyens qui font une république les citoyens na kenn génnu ci ki nga xam ne dafa jàng ak ki nga xam ne dafa jàngul ki nga xam ne dafa am ak ki nga xam ne dafa amul maanaam waruñoo toll fenn foo xam ne ci Sénégal ba 2020 ñuy am cette distinction sociale bu nekkee yow tu es riche maanaam dangay am liberté boo xam ne dangay am une pénalité ci c'est ça en fait tu es un tu es un intouchable tu as cette tu as cette en fait tu as immunité parce que c'est statut social moom moo la koy conféré bu nekkee da bokk sur la sur la bourgeoisie bu nekkee da ngaa bokk sur l'oligarchie tu as kenn mënulaa laal fenn chaque jour ñu gis ko justice bi di libéré ñoo xam ne maanaam li ñu def ils sont c'est c'est c'est des délits scandaleux dañ leen a war a tëj ay at yu bari yow bu nekkee baadoo la nga nag on te respecte pas on te regarde avec condescendance bu ñuy ñëw sax maanaam sa dossier dañ koy tere teel a fat-fate pour nga dem tëdd ji kaso kaso yi ñi fa nekk peuplé ko ñu ci bari defuñu dara ñu ci baree bari bari defuñu dara ñu ci bari ay délits mineurs la ñu def amuñu ay peine alternative ci ci kaso yi am na ñoo xam ne li ñu def jarut sax kaso mënoon nañ leen a jël yóbbu leen ñu def de des des travaux d'intérêt général pour pouvoir réintégrer la société mais tey bu nekkee maanaam yow sàcc kan nga bu nekkee yow yow yaay yow yaay yaay sàcc xaalisu askan bi bu nekkee yow yaay jàppee askan bi jàmm bu nekkee yow yaay bokk ci ñuy noot askan bi à chaque fois ils vont trouver des subterfuges pour ñu génne la à chaque fois ils vont trouver des mois et des voies pour ñu pour ñu pour ñu innocenter la c'est ça Bougazelli ñu tëj ko ci kaso bi li ñu ko tëjee jàpp ko en en flagrant délit enquête am ja jeexagul ñi mu ñi ni ñu ko tëjoon c'est ça qui est dommage en fait ñi ñu ko tëjaloon ñi ñu tëjandool Bougazelli ñooñu ñëpp ñu ngi tëdd ci kaso bi moom rek moom moo ci génn te moom moo nekkoon cerveau bi boo leen ko waxee boo leen ko waxul ñun ñëpp xam nañ loolu ñi ñu ko tëjandool ñi mu ñi mu tëjandool ñooñu ay doomu baadoo la kenn xamu leen ba tey xamoo kan la bokkal kaso bi kan la defandool tilim yooyu gis nga baadoolay ak doomu baadoolay moom moo tax jeunes yëpp a war a yeew les politiciens là ils sont pourris ils sont de mauvaise fois ils nous utilisent à dañuy utiliser ñu utiliser ñu utiliser ñu ba ñuy bëgg a dee ñu jeté ñu doomu baadoolo yi ñooy nekk ci seen deal yooyu noonu ñu leen di utiliser parce qu'ils n'ont pas quoi faire amuñu lu ñu def ils ne travaillent le les les jeunes là ils ne travaillent pas. ils n'ont pas de perspective d'avenir ils n'ont absolument rien du tout de ce fait ils sont utilisés à de mauvaises fins par des politiciens véreux par des intellectuels écervelés par des gens qui ne sont pas justes en fait ñu ñuy utiliser suba ñun ñooy dem tëdd ci kaso à leur place ñoom bu ñu duggee kaso benn semaine lañ fay def suba bi ñu génn moom moo tax il faut remettre en question le modèle en réalité tout le modèle tout le système il faut le en question le soumettre à une réfutation sans complaisance pour ñu mën a amaat une justice sociale c'est ça en fait au Sénégal c'est les intellectuels qu'il faut pointer du doigt c'est eux le véritable problème du du, du pays problème bi du Macky Sall de c'est les intellectuels qui sont dans dans dans le pays c'est eux en fait ñoom la ce sont eux les corrompus les véritables corrompus nekkul benn waaye bi ngay fekk fee ne jox ko benn fukki dërëm wala cent francs de mais les véritables corrompus c'est ceux des millions pour balafrer la la justice sénégalaise. juste pour des places juste pour des distinctions juste pour am benn taxawaay bi juste pour préparer seen seen euh, nu mu tuddati juste pour préparer seen retraite juste en réalité pour se faire voir pour se faire bien voir pour se donner une image élogieuse à à à l'endroit des autorités moom mooy tax ngay jël yenn décision yoo xam ne maanaam ça remet en question tout tout tout le système judiciaire tey aujourd'hui tout le système judiciaire est insulté tey kuy magistrat wala nga nekk ci justice sénégalaise bi war ngaa xoolaat sa bopp quoi parce que tey mënuma man je peux pas comprendre ça en fait je peux pas comprendre ça boo nekkee baadoolo da ngay tëdd tëdd kaso mais boo nekkee politicien yow mënoo tëdd kaso boo tëddee kaso doo fa yàgg bu nekkee dañ laa jàpp dañ laa jàpp yow amul lu lay layal amul bu Bougazelli amul lu koy layal amul lu ko mën a layal moom moo tax nous devons nous poser mille et une questions tey exigence bi foofu la nekk exigence bi foofu la nekk ñi nga xam ne dañoo dem jàngi jàngi bu xóot affaire bi ce n'est pas une question d'intellectualité ce n'est pas une question de longues études affaire bi ce n'est pas une question de diplôme c'est l'éthique c'est la probité c'est l'intégrité d'une personne il faut travailler dans ce sens-là ñi nga xam ne ñun dañ leen a jox cër ñooñu ñooñu gën a ñàkk wékk parce que ñoom ñooñu jàppee ay dof bu ñu ñëwee taxaw ñu ne non non parce que jàng naa parce que jàng naa pour lan jàng nga pour insulter les Sénégalais jàng nga pour lan jàng pour am benn poste boo xam ne tu seras jàng nga pour am benn poste boo xam ne tu sera un député boo xam ne tu seras là tu seras là à défendre les intérêts di di de di di de ton de ton prince au détriment des des du peuple sénégalais loolu ban jàng la loolu ban njëriñ la am kañ la nekk ci dëkk boo xam ne ku nekk day xam sa wareef di ministre au planton loo mënti doon que tu sois ouvrier ou bien un agent de l'administration sénégalaise nga xam sa wareef xam ne dangaa am ay devoir envers les sénégalais. parce que c'est ça quoi dañoo nekk ci benn système boo xam ne c'est le système en réalité qui est pourri c'est le système qui est ignorant en soi les intellectuels nag ñi nga xam ne ñoom ñooy les intellectuels nekk ci instance de décision yi am les postes les plus prestigieux ñoom ñëpp dof lañ ñu jàppee ñun ñun ñi nga xam ne jànguñu ñun ñi nga xam ne amuñu amuñu taxawaay ñun ñi nga xam ne suñu yaay yi dañuy xëy di root ci pompe yi pour pour naan. ñun ñi nga xam ne suñu papa yi ci grand la ñuy ñun ñi nga xam ne ñun ñooy nekk ci banlieue bi di xëy di wut fukki dërëm bu ñu nekkee mais ñun dof lañ ñu jàppee fait e ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jàppee dof c'est eux qui sont censés refaire le pays c'est ceux qui sont censés remettre le pays à l'endroit ce pays Macky Sall l'a mis à l'envers et que tey ñun ñëpp dañoo jortoon ni maanaam la justice sénégalaise aurait cette clairvoyance de remettre le pays à l'endroit parce que justice moom moo mën a maintenir par exemple cette cette égalité cet équilibre mais justice boo xam ne maanaam à chaque fois nga insulter insulter les tey bu ñu amoon justice boo xam ne maanaam une justice des pauvres justice boo xam ne ñi nga xam ne ñoo gën a ñàkk sax ñooñu lay ñoo ñu lay protéger ñooñu lay xool nan la leen di mettre dans de meilleures et condition ñoo ñu lay xool nan la leen di muccalee ci kaso ñu lay xool nan la leen di muccalee ci longue détention mais ban magistrat ngay gis muy nekk di œuvrer aujourd'hui par rapport au longues détentions il y a des gens qui sont dans les prisons depuis des années des années et des années Ils sont dans les prisons et ils n'ont absolument rien fait du tout. Mais justement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire, de se faire entendre. Ils n'ont pas les moyens de se, de défendre. Ils n'ont pas les moyens même pour prendre un avocat qui prendra en charge leur cause et leur défense. Ñooñu, ils croupissent dans les prisons. Mais quand tu es un politicien véreux, tu peux faire toutes les incongruités du monde. mais ça je vous le dis tu peux faire du n'importe quoi yow doo am problème boo duggee ci kaso bi justement da ngay nekk ci kaso bi sax mais fa ngay nekk maanaam oppi comme comme hôtel lay mel tu seras à l'abri du besoin tu seras très bien traité et choyé même davantage parce que yow tu es un politicien tu as volé l'argent du peuple tu as insulté les Sénégalais tu les considères comme du bétail, comme de la merde. Nous, politiciens, ils nous considèrent comme de la... Politiciens et les intellectuels, en fait, ils nous considèrent comme de la merde. Nous, nous, nous, ñoo Macky Sall, c'est ce qu'il disait en 2012. C'est ce qu'il disait. Nous am une justice bu fort dañuy créer les conditions pour nous avoir un état de droit. Mais bon droit, ban droit, là, nous avons Bon état, là, nous avons Aujourd'hui, les jeunes sont frustrés. ñun nous pas frustrés. am na leen loo xam ne man je suis totalement d'accord ah on peut être avec n'importe quel leader politique on peut être avec qui l'on veut koo bëgg faral mun nga ko faral mais l'intérêt supérieur doit rev l'intérêt supérieur du Sénégal doit être au-dessus parce que tey Sénégal moom moo war a ñor ñëpp maanaam la justice sociale moom moo war a ñor ñëpp mais l'égalité aussi moom moo war a nekk mbibitu ku ne parce que mënoo nekk ci dëkk boo xam ne maanaam y a Sénégal d'en haut Sénégal d'en ba ñu juddoo ba tey loolu lañ fa fekk ba ñu juddoo ba tey loolu lañ fi fekk le Sénégal dan haut et le Sénégal d'en bas le Sénégal d'en bas lui il croupisse lui il vit dans le mensonge lui il vit dans l'obscurantisme lui il vit dans les conditions les plus minables le Sénégal d'en haut nag lui il est dans son zone de dans sa sa sa sa zone de confort nekk ci jàmmam chaque jour ñu leen di choyer chaque jour ñu leen di élire chaque jour ñu leen di teg fenn foo xam ne maanaam kenn kenn mënu koo xam mais ba kañ te ñun suba ñun ñooy ñun ñooy demaat votel ñii nii nii nii ñun suba ñun ñooy demaat maanaam ne ñoom ñoo fi gën ñun suba ñun ñooy demaat ne ñun ñoom ñoo fi gën a baax mais kon il faut faudrait que ñu ñu remettre en question ñun peuple bi le véritable problème même day day day ñun ñun la ko en fait moom moo tax ku nekk dangaa war a taxaw quoi remettre ak sa bopp en question ak koo mënti faral nga am cette exigence. il ne faudrait pas toujours continuer à personnaliser la politique tey dañoo nekk ci dëkk yoo xam ne maanaam on personalise même la politique on personalise le pouvoir dañuy personnaliser pouvoir bi loo wax ñu ne waa ji moo fi gën waa moo fi gën a baax waa moo fi gën a rafet sans pour autant déceler les impairs de ce de ce de cette même personne yéen ñi ànd ak tey Macky Sall vous devez avoir par exemple cette honnêteté intellectuelle de déceler les impairs de ce régime nit ñi ñoom ñoo ko voté mu nekk un président mais bi mu fi nekkee ba tey defu defu fi loo xam ne dafay jëriñ askan bi defu fi loo xam ne dafay jëriñ les sénégalais defu fi loo xam ne maanaam dañuy taxaw ni ñun ñëpp maanaam ni kii maanaam de façon consensuelle ñu ne Macky Sall lii mu def tey kenn mënu koo dàq parce que dëgg rombul ay nopp Macky Sall bu doon def lu jub li muy def bu ko tegoon ci dëggal ak jubal ak leeral ku ko critiquer da ngaa soxor. ku ko wax loo xam ne waroo ku ko wax ñëpp dañuy xam ne dangaa soxor moom moo tax nga koy wax mais aujourd'hui force est de constater que il est en train de faire du n'importe quoi au, au, euh, dans dans mais mais di n'importe quoi quoi loolu ngay gis en fait respecté wuñu boobu ba tey respecté wuñu nekk ci dëkk boo xam ne mais da ngay dem dans d'autres pays mais le citoyen il est choyé dëkk yu développé bi yëpp dëkk yu développé ci àdduna bi yëpp nit la ñu jox cëram nit la ñu wekk nit la ñu teg fi ñu ko war a teg mais boo ñëwee ci suñu dëkk yi nit la ñu gën a ñàkk doy dal rawatina nag boo ñàkkee boo ñàkkee yow tu n'existes pas dans cette société la boo ñàkkee yow on te considère pas mais ba kañ ñu nar a nekk ci spirale boobu noonu di avancé ba tey ñu nar a nekk ba kañ la ñuy nar a nekk ci spirale boobu noonu muy corsé wu davantage ku nekk nag toog fi nga toog naan yàlla baax na. ku nekk toog fi nga toog naan yàlla baax na li ko fi dese bëriwul dina dem période bi li ko fi dese ci lañu war a exiger davantage de justice davantage d'égalité davantage d'équilibre parce que lii mënu duy parce que lii dafa metti li ci des nag maanaam ku nekk sa responsabilité la ku nekk sa responsabilité autant que nous sommes dañoo nekk ci dëkk boo xam ne maanaam pour nga jug sax di voter ji maanaam le citoyen il ne sait même pas pourquoi il doit aller voter et pourquoi le pourquoi de son vote boo ko expliqué woon boo ko laajee sax xamu ko tey ñu nekk ci benn système bo dëkk boo xam ne maanaam on a dépolitisé la société dañ koy dépolitiser la société c'est ça qui est malheureux les politiciens ils nous ont convaincus de no de notre incapacité ñoom gëmloo nañ ni ñun mënuñu dara ñun xamuñu dara système bi ni mu tënkoo kenn koo changer ku nekk toog fi nga toog naan yàlla baax na di xaar ndigalu par exemple benn waaju baax waaju baax ku nekk toog di xaar sa ndigal naan waaju baax ji lu mu wax rek loolu la ñuy def ba kañ gars yi nañu nañu nañu nañu nañu posé wu les bonnes questions quoi nañu posé wu les bonnes questions Maolana Cheikh Ibrahim daf ko doon wax naan vingt et unième siècle bi c'est le siècle c'est le c'est le siècle des Africains mais ba tey mënuñoo gis benn changement. malheur apple malheur déception après déception le véritable problème c'est le peuple c'est le peuple qui doit davantage être exigeant tey bu ñu nekkoon ci dëkk boo xam ne les peuples sont exigeants kenn du fa xalaat a génnee Bougazelli boo ko génnee tey ci suba bi di nga ko delloowaat kaso parce que peuple bi ñoom ñooy taxaw ne lii du am parce que peuple bi ñoom ñooy taxaw maanaam défendre li nga xam ne moom mooy l'intérêt supérieur du Sénégal mais ñu nekk ci benn dëkk boo xam ne quand euh, quand la personne défavorisée, est, est, elle, est, elle, elle est pointée du doigt, elle est matraquée, elle est éhontée, kenn du wax mais bu nekkee un politicien nga gis nag ñëpp taxaw ne non waruñ ko définir c'est une injustice c'est lii c'est là Macky Sall il ne cesse de nous insulter par rapport ak mesures yi nga xam ne moom lay jël par rapport ak doxalin bi nga xam ne moom la imposer état bi moom la imposer Sénégal depuis 2012 ñu nar a taxaw ba kañ di ko seetaan jeunes désorientés qu'ils qu'ils ont qu'ils ils ont ils ont complètement perdu de repère kenn xamatul fooy taxaw gouverner nañ gouverner mais nañ ci teg yërmande nañ ci teg yërmande ak dëgg buñ ko ci tegee rek jàmm am mais buñ ci tegul yërmande teguñu ci dëgg jàmm du mës a am jàmm du mës a am Sénégal jàmm nag nekkul jàmm bi ngeen foog ne moom moo am Sénégal loolooy jàmm loolu du jàmm de. jàmm boobu c'est une sécurité mensongère jàmm bi Sénégal di dund c'est une sécurité mensongère du jàmm xam nga lan moom mooy jàmm jàmm moom mooy nga toog am ko ci sa xol am ko ci sa nekkin dans la vie de tous les jours loolu mooy jàmm ñi nekk Sénégal ñoom li ñu foog jàmm loolu du jàmm di ko wax mu ne la Sénégal pays jàmm la loolu du jàmm bu nekkee jàmm la c'est le plus bas degré de la de de de la paix loolu mooy degré bi gën a ndaw ci jàmm jàmm boo xam ne boo xiifee boo boo feebaree doo faju jàmm boo xam ne boo lekkee boo lekkee doo boo boo boo xiifee doo lekke jàmm boo xam ne maanaam la ngay liggéey lu la permettre weesuwut loo jëndee reer boo wàccee jàmm boo xam ne maanaam amoo perspective d'avenir jàmm boo xam ne da ngay xëy di gis sa yaay di jee ak ñàkk jàmm boo xam ne da ngay gis sa papa nekk ci koñ bi di taxawaalu parce que amut lu mu def jàmm boo xam ne jàmm boo xam ne loolu ban jàmm la moo tax gars yi dañoo war a posé waat seen question ci concept boobu noonu Sénégal pays jàmm la pays jàmm la Sénégal ñi fa am jàmm xam nañ ko Sénégal ñi fa am jàmm moom mooy ñi am Sénégal ñi fa am jàmm moom mooy les politiciens véreux les politicards ces gens lache qui utilisent les moyens de la communauté pour se pour se gaver d'argent qui utilisent les moyens les les les l'argent du contribuable l'argent du peuple pour se const pour se créer une bonne situation ñooñu noonu ñoo am jàmm mais ñun baadoolo yi amuñu jàmm bu ñu naq bu ñu bu ñu jaawale ñaari concept yooyu ñun dañ ñuy nax rek naan ñu jàmm lañu am jàmm la am saa su nekk nag ñu invité leen ci tele bi bu ñu bëggee nax nit ñi rek ne jàmm lañu am fii dëkku Alaaji Malik la fii dëkku Limaamu Laay la fii dëkku Buukunta la fii dëkku lii la fii dëkku laa la Buukunta Limaamu Laay Serigne Touba ñoom ñépp ils ont combattu pour la justice sociale ñooñu loolu lañ doon xeex ñooñu tey bu ñu ñëwoon tey gis ni Sénégal nii lay doxee ñoom ñooy njëkk a bañ ko parce que tey dañoo bëgg a jël ñooñu noonu bëgg leen a tënk ci benn carcan boo xam ne le carcan religieux Serigne Touba dina taxaw di gis injustice du ko xeex kooku nga xam ne bañ injustice moo ko yóbboon maa yomba El Hadji dina gis injustice bañ ko xeex Bou Kounta Ndiassane dina gis injustice bañ ko xeex Maulana Cheikh Ibrahim dina gis injustice bañ ko xeex. yéen li ngeen foog jàmm du jàmm de wala bu nekkee jàmm mooy jàmm bi gën a ndaw kon nag nit ñi nañu yeewu xam ne am na leen loo xam ne c'est le monde intelligible après garaaw loolu suñu digganteeg yàlla la nañ ko lijjanteeg yàlla mais problème mu àdduna yi ci àdduna lañ koy régler problème àdduna yi ci àdduna bii lañ koy régler mënuñu mënul xaar yemal xiyam mënul xaar yemal xiyam yàlla cadre spirituel yàlla cadre réel et le cadre temporel après loolu la quoi loolu la nit ñi war a comprendre ku nekk libéré wu de ces chaine ñu jug ci dëkku jàmm la dëkku jàmm la exiger plus de de d'égalité plus de considération plus même de sécurité parce que am na dund boo xam ne boo koy dund maanaam yow on nie ta on nie ta qualité d'homme on te nie en tant que qu'un être humain yow dañ lay nii yow tu n'existes pas Sénégal ñaata jeune ñoom ñoo fa nekk di dund ci dëkk bi te te te maanaam dund bi ñuy dund xaroo ko gën ñaata jeunes ñoo fa nekk di dund ci genre condition yooyu ñaata jigéen ñoo fa nekk di dund ci dund boo xam ne dund bi ñuy dund xaroo ko gën fu nekk la ñuy wër dinañ wër suba ba ngoon jot il elles et la bannière pour mën a dundal seen loolu ban dund la ñaata jigéen ñaata jigéen ñooy xëy ci kër am seen ay doom duñ leen sax mën a yóbbu ñu jàngi loolu ban dund la loolu ban jàmm la loolu ban jàmm la rek laay wax loolu laa xamul ban jàmm la suñu yaay yi chaque jour bu ñu xëyee da ngay xëy gis suñu yaay fajar teel la ñuy xëy di wuti ci ndox ñii di taxani at ay ay mat loolu ban dund la en fait genre on est au vingt et unième siècle ñu ñuy gëmloo ni Aline ñu naan ñu sàcc nañ suñu dëkk six mille milliards six mille milliards ñaari hôpitaux la mën a tabax. six mille milliards ñaata jeune la mën a wutal emploi six mille milliards ñaata enseignant la mën a mettre dans de bonnes conditions de vie ainsi de suite ainsi de suite et ñu taxaw problème yooyu di am ba deux mille vingt ñu ne ñu Macky Sall mu ngi liggéey dëkk jub moom moo koy defar ak sa jàng lu mu sori sori boo jubut baaxoo foog nit ñi xam loolu ak sa jàng lu mu sori sori boo jubut baaxoo. ñi nga xam ne nag ñooñu la ñuy jiite complexe boobu nit ñi dañ ko war a ba parce que dafa jàng parce que il agence bien les mots parce que def na nii parce que def na naa parce que Sorbonne la jàngee parce que université bu mag la jàngee parce que il a fait son doctorat à l'université nangam sangam Cheikh Anta Diop wala Gaston Berger wala dara te boo ñëwee ci fonctionnaire bu pour yi ngay nekk yow boo ñëwee yow yaay amadoué les sénégalais yow boo ñëwee yow yaay ex yow yaay éhonté les sénégalais yow boo ñëwee yow yaay insulté toujours la euh, les sénégalais. à travers tes actes yi ngay poser à travers ni ngay liggéeyee à travers maanaam sa gis-gis bi nga xam ne maanaam noonu nga ñàkk a wegeelee sénégalais kooku ñooñu lan moom moo tax ñuy am complexe ci ñooñu lan moom moo tax ñu leen di ragal lan moom moo tax ñuy continuer di leen fal lan moom moo tax bu ñu mënul remettre en question modèle boobu nag du ñu mës a avancer. bu ñu amaatee beneen président ni Macky Sall rek di def lay def parce que day xam ne peuple bi pare wuñu sax pour changer le véritable changement c'est le peuple c'est le peuple qui a cette cette énergie absolue l'énergie absolue ça n'appartient à aucun dirigeant am loolu amul dirigeant bu mu appartenir amul nit ku baax nit baaxeewut noonu à travers nos actes individuels nos actes héroïques individuels et loolu baax mu changement mënu cee jaar. C'est le collectif qui fera changer les choses. Le pouvoir et la gloire, ça appartient au collectif, au peuple. Quand on, quand on dit le collectif, ça c'est le peuple. mën a changer. Parce que ñooñu ñoo am l'énergie bi nga xam ne moom mooy changer. ñooñu ñoo am en réalité li nga xam ne moom mooy ngëneel ñooñu ñoom ñoo mën a évoluer loo dëkk loolu moom mooy changement véritable ñu bañ a nekk di personnaliser le pouvoir ñu ubbi suñuy xel di xalaat ñu am benn taxawaay boo xam ne dañ koy am ci suñu société ba injustice dootu fa am en réalité loolu moom mooy dëkk bu baax loolu moom mooy dëkk bu jag dëkk bu jag boo gis ci àdduna citoyen yi ñoom ñoo taxaw ne day day jag barki alxuraan dëkk boo gis mu jag ci àdduna citoyen yi yee ko defar mais nekkul politicien yee ko defar politicien mënul defar dëkk njiit nag mënul ñàkk njiit mënul ñàkk ki gën ci ñoom nañ ko teg mu jiitañu mais bu demee ba nekk bu yeb demee ba ñu teg ko fi ñu ko teg na am mat boo xam ne ak gore boo xam ne day xam ne peuple bi ñoo ko def li mu doon parce que dañ leen a fekk ñu nekkul dara ñu def leen lu ñu doon Seydina Mohamed loolu la ko yàlla defal parce que alam nasara loolu la doy loolu lay wax parce que yàlla daf ne ko damaa laa fekk ngay ku réer ma gindi la ma fekk la ngay ku ñàkk ma may la moom moo tax bi mu nekkee yéeg ba doon li mu doon maanaam mu doon xeex injustice ak réer moo tax Seydina Alioune daf ko doon wax saa su nekk loolu la doon wax naan xeex naan réer ak ñàkk réer ak ñàkk mu ne bu doon jëm day day day jël jaaseem xeex loolu ba loolu jóge fa te tey suñu njiit yi ñu am suñu nguur yi ñu am kan moom mooy nar a ja kan mooy taxaw rek ne day jaayante pour xeex réer ak ñàkk kan day gis mu koy jaayante amut. lii leen ñor rek moom mooy na seen famille dund dund bu baax li leen ñor rek moom mooy seen mbokk bu leen jege nan lay échapper euh, la euh, la guillotine de la de la justice loolu rek moom moo leen ñor ñun nag le bas peuple on est toujours la exiger wuñu davantage et chaque jour bu élection jotee bu ñu dawee ñëw ci ñun parce que xam nañ ni ñun la ñu soxla bu dul ñun du ñu doon li ñu doon te peuple bi nag ku yëgul sa nguur doo nguur. le véritable pouvoir ça appartient au peuple nit ki li nga am boo ko xamul doo ko mës a jëriñoo nit ki boo yëgut sa nguur gi doo mës a nguuru nañu yëg loolu nañu yëg ni maanaam loolu ñun la ñoo ko moom baax ñun la ñoo ko moom doole ñun ñoo ko moom parce que ñoom ils nous ont convaincus te que ni peuple bi yow doo dara yow boo soxlaa 1500 man maa la koy jox mais xaalis bi ñu lay jox loolu sa alal la à travers nag yan mécanisme la ñuy defee la pédagogie nécessaire ba peuple peuple bi citoyen bu nekk mën a comprendre que ni il a des devoirs et des responsabilités envers sa communauté envers sa population envers sa nation en un mot c'est ça aujourd'hui le véritable travail loolu bu ñu ko deful ku ñu mënti am changement du am parce que da ngay fal nit ki jàppee ko ni maanaam moom mooy yàlla bu ndaw c'est un demi-dieu c'est un demi-dieu te nit rek lay doon. boo ko falee ba pare taxaw nit ki nga fal ba pare taxaw naan ko yaa ma gën yaa ma gën a baax yaa ma gën a gore kooku jaam la lay def kooku jaam la lay def nit ki danga koy fal li Sidi Lamine Niass doon wax ne damaa gunge Macky sàll ba buntu pale ba ni ko duggal ñun ñu ngi delluwaat ca la ñu nekkoon parce que peuple bi moom moo ñu ñor foog nag peuple bi ñu dindi suñuy chaînes yi nga xam ne dañu koo takkal ku nekk xam sa wareef kenn ku nekk doo doo gisati un politicien naan da ngay raam ci karamam pour lan politicien mooy kan ba ngeen di sukk ci karamam politicien moom mooy kan ba ngeen koy fekk di ko nuyoo ñaari loxo politicien mooy kan politicien du dërëm ba ngeen koy nuyoo ñaari loxo c'est un simple citoyen Macky Sall c'est un simple président pour lan en fait ñun en Afrique on n'a pas cette impression on a l'impression que nous avons de des rois ñun conception boobu lañu am ci pouvoir conception boobu kese lañu am ci pouvoir nit ki du doon dara nga def ko dara ba pare jàppee ko yàlla bu ndaw conception boobu lañu am ci pouvoir conception boobu buñ ko changé wul fan la ñuy avancé ci àdduna conception boobu buñ ko remettre en cause fan la ñuy changé ci àdduna un politicien boo xam ne li mu doon yow yaa ko def lu mu wax nga ne ko yaaram kala te parfois li muy def mooy gën a ignoble parfois il pose des actes qui sont aux antipodes de la morale aux antipodes de l'éthique aux antipodes même du bon sens nga taxaw ne moom moo fi gën moom moo fi gën a baax tey am na ñoo xam ne ñoom ñoo voté loon Macky Sall mu doon li mu doon tey mu nekk un président il continue à le défendre bec et ongle et pieds et point liés di défendre nit ci lu dul dëgg xanaa kay ànd neex na waaye ki nga àndal boo koy défendre nga dégaar défendre ko ci dëgg jub je suis pas avec Macky Sall quand il fait quelque chose de bien xanaa dinaa am sañ-sañu ne lii Macky dinaa am gore ak modestie ne Macky lii mu wax baax na lii mu def baax na mais bu defut lu baax yaaram kii li mu def baaxul ban justice moom moo libéré Bougazelli soo ayoo sérieux waay soo ayoo sérieux ñuy topp nit ndax dëgg soo ayoo sérieux quoi ñu am nenn noo xam ne dañ koy taxawee chaque jour ñoom ils nous sont c'est ça le schéma en en Afrique c'est ça le, le schéma ñoom ñoom ñuy gouverner depuis les indépendances boo leen xoolee les gens qu'on avait l'habitude de voir ñooñu la ñuy gis ba tey ñoom ñooy gouverner ñoom ñoo naan la la politique baaxul ñoom ñoo naan la les politiciens ay triant lañ ñoom ñoo ñu gëm loo ni maanaam politique dara baaxu ci dara baaxu te ñoom ñu ngi continuer di dox ci loolu ñoom ñu ngi continuer di ko def ñoom ñu ngi continuer di enrichir au détriment de la du collectif au détriment des Sénégalais au détriment de la de la masse ñun ñu continuer nekk ci schéma boobu ba pare ne ci loolu la ñuy continuer ba pare na ci dox doxalin boobu la ñuy gën a gën a gën a la ñuy la ñuy la ñuy taxawee mais nit ñi nañu yeewu nit ñi nañu xam loolu Macky Sall gënuñu dafa nekk président rek mais gënul kenn ñun nag ñoo ko tànn teg ko fi mu nekk yàlla jàppale ko mais nag bu demee ba doon li mu doom na am mat ak baax ak gore boo xam ne am yërmande ci askanam. xam ne li mu doon maanaam c'est passager nguuru yàlla rek moom moo dul jeex ak lu mu mënti def nguuru yàlla rek moom moo dul jeex maanaam tey dirigeant bu mu mënti doon nga doon catholique musulman chrétien loo mënti doon ci àdduna boo amul cette générosité intellectuelle doo mës a avancer doo mës a def lu baax nit boo wekkut sa askan munoo leen fonk nit boo amul yërmande ci sa askan munoo leen defal lu baax nit boo amul yërmande ci sa askan di nga yàgg a woññi seen sutura. njiit bu amul yërmande munut baax kooku jarut topp te ñun en Afrique njiit yi ñu am amuñu yërmande ci ñu moom moo tax à chaque fois loo gis mu xew rek dañ koy def occasion pour gën a enrichir au détriment de la masse xoolal tey couvre-feu bi c'est juste un moyen boo xam ne pour enrichir quelques politiciens le, le coronavirus là xoolal tey crise du coronavirus bi dans les tey xoolal Afrique ñun on on nous a occulté à travers ça depuis combien de temps ñu teg un couvre-feu depuis combien de temps ñu nekk ci état d'urgence tey États-Unis xam ngeen ñaata nit ñoom ñoo fa dee plus de cent mille personnes États-Unis plus de cent mille personnes musoo leen dégg le président réclamer les pleins pouvoirs musoo leen dégg président foofu noonu ñu établir état d'urgence institutionnel wala état d'urgence politique mais peut-être état d'urgence sanitaire couvre-feu bi lan la jotee état d'urgence politique couvre-feu bi lan la joteeg plein pouvoir couvre-feu bi dafa war a rendre caduque l'Assemblée nationale nan la ko war a defee ñun en Afrique moyens dictatorial yëpp lu xew maanaam ñu utiliser des moyens dictatorial des moyens fascistes des moyens qui sont aux antipodes de la démocratie ñenn ñi naan wax na dëgg nii la war a doxee wax na dëgg sénégalais dañoo dëgër bopp wax na dëgg wax na dëgg ban njëriñ la am. justement moom moo leen di wan wane wan le caractère prédateur de ces gens qui nous dirigent li coronavirus bi du lenn lu dul une crise sanitaire nañu jël ay mesures sanitaire bu ñuy joxe ay plein pouvoir nañ ko def au niveau de la santé mais politiquement lan la pour créer ay honorariat ay honorariat xaw ma lan jox ko benn benn femme pour libérer Bougazali kenn du wax. pour def ay incongruité ay ignomité yoo xam ne kenn du wax ñu taxaw ne en réalité kooku bëgg nañu moom moo tax sénégalais faw ñu posé wu dégg faaw ñu posé wu les question questions pour comprendre aujourd'hui comment le monde fonctionne il faut que qu'on se donne la peine de regarder comment le monde fonctionne aujourd'hui pour que ñu comprendre en réalité fan la ñu nekk ñun Sénégal ba tey ñun puusuñu paasuñu dirigeants yi ñu am yëpp ay xale lañ ñu jàppee dañuy infantiliser foog nag jeunes yi maanaam am conscience boobu noonu. parce que munoo nekk jeune nekk ci benn pays am vingt cinq ans jàng ba yee say këyit liggéey munoo koo am te boo demee ci marché travail bi di nga fa fekk si fukk ak juróom-ñaari morom yoo xam ne ñu ngi taxaw nekk fa cinq ans di xam di am liggéey paa yi nekk ci administration sénégalaise bi bañ a bañ bañ a bañ a bañ a bañ a retraité Macky Sall gën a yokkal seen ay salaire di leen a yokkal seen traitement di leen que ñoom ñoo koy mu maintenir ci dëkk bi jeunes yëpp taxaw ne non loolu mënu mun loolu dara nekku ci parce que ni c'est la logique normale c'est la logique normale des choses nii la ñu fekkee suñuy papa dund ci suñuy maam ci la ñuy dund suñuy mag ci la ñuy dund ñun bu ñu ñëwee ci loolu la ñuy dund à un moment donné benn génération jël ay responsabilité bu génération bu benn génération faaw mu taxaw jël ay responsabilité pour lii mën a changer benn génération bu ko defut du mës a changer ñun ci la ñuy dund suñuy doom ci la ñuy dund ñoom seeni doom ci la ñuy dund moom mooy li ñu Ablaye Wade bëggoon defal bi mu demee Karim Wade la ñuy imposer parce que ñoom ils sont convaincus que ni c'est eux qui sont qui sont les seuls sénégalais aptes à diriger et à gouverner ñoom rek ñoom ñoo mën a diriger ñoom rek ñoom ñoo mën a gouverner ñu nag nous sommes les beaux à rien nous sommes les incompétents nous sommes les incapables nous n'avons pas les moyens ñu bëgg taxaw di dox ci loolu gis nga tey am na leen loo xam ne le je ne suis pas concerné moom moo tardeel Afrique Afrique loolu moom moo ko tardeel lu xew rek ku nekk ne ah man de je ne suis pas concerné suñu dëkkandoo la du man fu ñu laalee sa dëkkandoo dafa war a yee ci yow le fibre patriotique c'est le collectif qui fera changer les choses tey bu ñu jàppee nit nit tëj ko ci kaso injustement loolu daf laa war a alerter directement parce que demain ça peut être tey bu nit duggee ci gaal gi parce que ñàkk na liggéey moom moo tax mu dugg ci gaal gi dee ci gaal gi dugg ci gaal gi pour dem Europe dee ci gaal gi demain ça peut être moi demain ça peut une autre personne moom moo tax ñëpp a war a jug taxaw pour ñu mën a am système boo xam ne dafay permettre nit ki bu tollee ci âge yu liggéey mu am loo xam ne daf koy liggéey quand tu vas dans d'autres pays c'est comme ça qu'ils font créer ay pôle d'emploi ñuy recenser ñi nga xam ne amuñu liggéey parce que xam nañ ni ay jeunes lañ dañoo toll ci liggéey. dañoo toll ci defar seen avenir dañoo toll ci defar seen avenir defar seen ay avenir u doom defar seen ay avenir u waajur mais Sénégal combien de jeunes plus de deux cent soixante dix mille jeunes yoo xam ne chaque jour ils sont dans le euh, sur le marché de l'emploi ñoo am liggéey ñu toog fi ñu toog naan yàlla baax na ban yàlla aide yàlla loolu la wax dans la Bible aide-toi et le ciel t'aidera dans la Bible c'est ça qui est écrit aide-toi et le ciel t'aidera yàlla jox nañu lépp manqué luñu dara maanaam jox nañu lépp jox ñu xel pour ñu xalaat jox ñu tànk pour ñu dox jox ñu loxo jox ñu gémmiñ jox ñu bakkan jox ñu lépp yàlla deseelatuñu dara yàlla dafa kamal deseelatuñu dara li ci des nag ñun la ñun ñoo ko war a mën a matérialiser mais c'est ça en fait noonu lañu war a xalaatee am na ñoo xam ne seen dund bi yëpp dañoo jàpp ni c'est une malédiction dañoo war a toog rek ñoom nekk ci koñ bi di wër di wax ku wax ñu ne dafa soxor ku wax ñu ne lii ku wax ñu ne laa non non non parce que am na leen loo xam ne warul continuer te bu continuer rek maanaam su suñu yàqu-yàqu lay jur ñun ñëpp autant que nous sommes autant que nous sommes billaahi walaahi loolu nag sénégalais yëpp ci war a veiller ñëpp ci war a veiller ku nekk def ko maanaam sa sa sa sa code de conduite sa façon d'être sa manière d'exister nga doxaleeg loolu jëm ci kanam tant que amuñu sañ-sañ pour def ko dañu gaaw a changer li ci des nag moo mooy loolu noonu dañuy tournoyer rek dañuy tournoyer rek dañuy tournoyer rek maa ngi jaajëfal ñépp wax ji yàgg na mais ku nekk na xalaat ci li li li sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum doon wax sëñ Cheikh ah-, Ahmed Tidiane si almaktum dafa doon wax naan moom day wax ay ñoñam naan leen boo leen di roy dee leen roy ci biti réew mi mais bu leen di roy mukk ci biir réew mi mu ne leen parce que boo ñëwee ba taxaw aéroport da ngay jàpp ni da xam ne Sénégal dafa dangay ngay ne àdduna dafa taxaw or que àdduna mu ngi dox feneen Sénégal ñi fa nekk dañoo jàpp ni àdduna fa la yem mais àdduna dox fa àdduna feneen lay doxee fudul Sénégal ñëpp a sonn dëkk boo xam ne ñëpp lot ñëpp a loof bu ñu waxee ñu ne yàlla baax na yàlla baax na kay. mais nañ jaayante pour mu changer parce que les moyens sont au rendez-vous Sénégal ñàkkul dara nit mun na faa nekk dund dund bu mucc ayib dund dund bu baax dund mucc ayib dund bu convenable justice am fa égalité am fa équité am fa égal lépp am fa équilibre aussi am fa mais ñu nekk ci dëkk boo xam ne dara mësul changer lépp nii lay continuer sénégalais nañu posé waat seen bopp nañ posé waat ay question quoi ki ñu jàppee dof maanaam nañ ko ne yaaram du ñu dof quoi ay nit lañ te bu ñu bàyyee xel loolu rek dinañ avancer buñ ko defut nag du ñu mës a avancer maa ngi jaajëfal ñëpp live bi gudd na jaajëf am leen jàmm.